waaw Guy Marius Sagna ngi France. <laughs> non waa FRAPP ñoo dem. waaw France dégage déggatoo ko. FRAPP France dégage mais mi FRAPP France euh, il veut juste vous dire qu'ils ont enlevé dégage France. mais <laughs> euh, ils doivent nous expliquer pourquoi non ils doivent nous expliquer pourquoi France dégage n'apparaît plus. non c'est parce ko wax bàyyi <laughs> parce que tout simplement il faut que li si ma wax am na solo ndax il faut que ñoom ñu bàyyi di fooy suñu xel yi. bu ñu bëggee ñu dooleel leen ñu jël benn slogan bu ñu dindee slogan tamit nañ ñu ko wax. léegi frappe kese la. waaw frappe kese la doo rek la. Euh, euh, France dégage kese. gis nga pour man li may wax man la engagé. gis nga Macky Sall mii ñu ne France lay liggéeyal. Hmm. Macky Sall ba mu dogoog France ak a yàgg. yàgg na. ak a yàgg. lu mu jëmanti doon il va devenir l'envoyé spécial du 4P. waa France kay ñoo koy neexal. instant bi planète. waaw ñoo koy neexal ñoo koy neexal instant bi mais ba mu doonoo ko moom yàgg na. waaw moom nag moom wax fa dëgg neex yàlla. Hmm. mi ngoog une offre que le président Macky Sall a accepté kon nag nangu na. bés bu nekk ci président de la république moom accepté na nekk euh, envoyé spécial du 4P 4P mooy Paris Pacte for Peace and Planet. Euh, donc euh, loolu moom bi yeboo ñu xaar ko ci moom kuy wër président yi. ko ci fii en tout cas liggéey ba am solo la ñu ko dénk foofee jamono jooje Aminata Lo Dieng candidate la en tout cas am na xemmenteefu nekk candidate ci présidentielle 2024 yi moom Aminata Lo Dieng nañ ko dégg nag waaye fu mu nekk waree na boppam nee na la banlieue n'est pas suffisamment prise en compte par la politique du gouvernement moom Aminata Lo moo ko wax nee na banlieue bi neexul ba neex waaye gouvernement bi faaliwu leen demal demal sa banlieue ba mën na maa nga demal sa banlieue ba abri provisoire baa nga fa demal sa banlieue ba insécurité baa nga fa demal sa banlieue ba ndóol gaa nga fa nee lii rek moo lay war a mën a tax moom Aminata Lô nee na moo tax ñu ne ah état de faale woon nag banlieue <laughs> xel mi tukki ah, ah? dem na bu yàgg dem naa xaaral ah, de toogal hmm. noo pare goore parce que suba teel a ngi ñëw ak la bon week bon week dëgg la fexe leen ba yóbbu bon weekend rek ma xam ne bu dee. Ah, ah kon yow bokkoo foofu lu ma ci xam. am na daloo nee na. ngir yàlla état bàyyil xel banlieue bi ndax nag dafa mel ni banlieue du sa priorité waaw ah, banlieue du sa priorité option rek nga ko def waaye du priorité. élection jot nga dem ci banlieue ba bay électeur delluwaat boo ci paree pare nga ci. am na daloo jéem moom mooy ñaxtu loolu pour règlement assainir pour réglementer assainir le circuit de distribution. gaañaa ngay contrôler de. mburu mi mburu mi. waaw. dix mille baguettes. man biñ ko saisiré ba pare moom nañ ma ko andi. ñun njaayee ni maa ngi yàq der njaayee ni jóge ni nañ kontaan dix mille baguettes ak ñoo xam ne ay moto lañ yor wala ay chariot daan distribuer mburu mi ñoom ñëpp dañ saisir seen i mbir gaañaa nga ca liggéey ba nee nañ distribution mburu mi la ñu bëgg xool ñu koy def rek na lépp aw ci yoon sama goro nag bu leen ko laal boulangerie la yor cité ca boulangerie boobu ba fañ koy jaayee waaw moom yëppam dafa aw ci <laughs> barke ba yaay borom mburu maa nga ca saaku mburu maa nga ca kaw welo mburu maa nga ca biir clando mburu maa nga ca oto bu yëpp yàpp mburu maa nga ca uh, ay chariot bu ñëwee boutique ba wala ko ba nañ ko fay tegee tamit après nga ñëw jënd ku ñëw jënd dugal sa loxo di tànn par benn benn bu la soobul nga delloo jëlaat beneen loxo yu bëri manipulation googu la gars yi bañ. c'est des parce que la distribution du pain en effet dafa tegu ci ay charte mais man maa gars yi commencé woon nañ ko mais dañoo bay bayal. pain dafa laaj hygiène xam nga la laaj hygiène. Mhm. amul amul dara lu lu tegu ci kawam loo xam ne doo ko lekk. Mhm. donc pain bi nu muy génnee. léppam ngay soxla lépp ngay soxla. du coup loxo bu ko laal képp fu mu tegu rek jàppal ne foofu dañu koy soxla dañu koy lekk. Mhm. donc imagine ñaata loxo moo ci tegu ba kër baa muy yegg yow si yow sa si mburu boo demee boutique ba loxo biy jënd dëwlin moo lay jaay mburu loxo biy jënd chocolat moo lay jaay dëwlin loxo bi te lee taabal ba di fomp mooy mooy après bàyyi torchon ba ñëw laal mburu mi jaay la autant de voilà mooy dagg mburu man jënd naa fi pain chocolat boo xam ne damay lekk muy sax soble waaw dëgg la souvent <laughs> souvent <laughs> mu ngoog euh, Baye Fall bi nga xam ne dañ ko fat sa euh, Thiaye nu mu tudd euh, Thiayel Fally en tout cas diwaanu Touba la très suspect présenté au procureur gaañaa nga ca mbir ma près de 200 enfants retirés donc de la rue en une nuit mise en œuvre de la politique de protection kon dañu delluwaat ci loolu. ah loolu am solo la loolu moom. wax fa dëgg mais qu'est-ce ramène le phénomène dans les rues en général. chaque année dañuy ciy góorgóorlu. mais à chaque ñu nekk ci mbedd mi am na ñoo xam ne dañuy fugué. am ñoo xam ne ay faxmaan lañ mooy ñu ñëwee ay faxmaan. en rupture de famille. waaw am na ñoo xam ne ci dëkk ba la ñuy jóge duñ sax Sénégal jógewul sax Sénégal ñëw fii àndaa seen i doom amuñu fu na fanaan si mbedd mi la ñu nekk dañuy yalwaan seen doom ñooy dem yalwaan yi ñëw andil leen gis nañ fi ñoo xam ne sax dañuy luy ay xale. <laughs> bu yalwaan joxee dañuy luy ay xale. rawatina ay seex waaw bu guddi bu bu kii jotee ñu fay leen ñu dem donc lu nekk am na fi ñii di yalwaan bi mi ngi fi xale bi faaxee sa daara baa nga te ma ña nga xam ne peut-être dañoo fàqe seen kër maltraitance seen i ña nga ca mbedd ma doo xale yi itam bambali si mbedd mi dafa bari ku si nekk nag la tax a génn waaw amoon na fi opération bu mag bu ñu fi defoon pour jële fi xale oui mais xam nga amoon na fi yóbbu nañu xale yi commencé après bàyyi xale yaayam ngaat si mbedd bi ñun amuñu suivi dinañ am initiative bu rafet nag mais suivi mooy nekk problème. alors on nous le mot d'ordre euh, de grève des transitaires commerçants et transporteurs est levé euh, depuis hier soir Mame Mbaye. waaw kii ñu koy xamal nag moo di Djibril Tine. mu ne le mot d'ordre de grève des transitaires commerçants et transporteurs est levé depuis hier soir. ah levé nañu ko. Tine xanaa moo ñu nekk port autonome. voilà ñi doon grève noonu. ñi doon grève. waxtaan prix yi mën na gën a wàññeeku. Mountaga Sy mooy li ngay wax. Mhm. désamorce la bombe à retardement. très bien. kon nag xel daal mhm. c' est que Mountaga nag day bàyyi ba coow doo ak ñu doo waaw mën da ngay teel boo xamee ne lii ci xaw imaginer bi ñu fi grévé woon. léegi ñu mu yàqal nag ñaata lañ perte. mais boo xamee ne bi dafa am lu ñuy perte teel jóg nga négocier te comme lu mu manti doon ci négocier ngay mujj ci waxtaan ngay mujj mais dooreel loolu. nañu bàyyi rëy. Mountaga tamit nag. dinañ ci dikkaat tabac bi nga xam ne mi ngi ci buntu école yi. envoyé spécial du pacte de Paris pour les peuples et la planète en tout cas président de la république moom Macky Sall bés bu génnee ci présidence bi nga xam ne bés bu génnee suñu palais bi hmm. am na beneen liggéey bu koy xaar. en tout cas Macron dénk na ko te nee na nangu naa. yéenekaay bi daal na ci euh, dikk ci lu euh, am solo xoola xale bi xale bu ndaw bi ñu sànni. allahu akbar. un bébé abandonné. suuf su yéenekaay moom moo ko wax. a le nourrisson a été abandonné à côté. de garage de mécanicien lu nekk mënoon naa daal ci kawam un morceau de tissu a été enfoncé dans sa bouche. pour l'empêcher de crier waa léegi yow jur nga doon mënoo koo téye am nga yow nga ne ñu ne déetaay nga ne da koy sànni mais sànni ko rek bàyyi ko dem looy ñoox si gémmiñ gi ay morceau pour bañ mu yooxu donc yow da ko bëgg a rey donc rey ko daal daal di koy sànni. mais ki def li sadik na de. ay morceau la ñoox si gémmiñ gi. ngir bañ xale bi yuuxu yàlla la police a confié donc le bébé à une tierce personne en attendant donc de terminer ses investigations téyel kenn xamul doom bu lay jariñ c'est pour ça que euh, tata bi waay tuddati hmm? Ndella Madior tata Ndella li muy def dafa am solo day for xale yi ñuy sànni noonu ci mbedd mi ak li ni mel mu tuddee ko kenn ci célébrité yi comme ça ko di ko dimbali voilà di ko toppatoo c'est important l'info yéen a kaay Simon Faye ki lay waxal adoption donc de la loi d'accès à l'information ñaaw la société civile presse Macky Sall presse gis ne mu ko bindee en rouge si la région de l'Afrique de l'Ouest est en avance avec une dizaine de pays ayant déjà adopté donc la loi d'accès à l'information seuls quatre pays de la sous-région dont le Sénégal n'en dispose pas encore à ce jour lu tax loolu nag ak gàllankoor yi mu mën a andi <laughs> parfois da ngeen liggéey boo bëgg def information bi da lay të du côté de l'État lépp la ñuy codé verrouillé yëpp te verrouillé taskatu xibaar yi dañoo sonn. ñun. ñun taskatu xibaar yi. <laughs> Mountaga ngi nii li nga doon wax sànq. Mhm. ci Dakar Times Mountaga Sy a fait lever donc le mot d'ordre au port autonome de Dakar naissant donc naissance d'un pacte de stabilité sociale waaye lii xam nga li mënoon na ko njëkkee. te coow du jib. coow du jib yow njaate gi boo jiitee ay liggéeykat boo sentir ne coow mi ngi am mais toog leen ngeen waxtaanee ko. limite c'est comme s'ils aiment que les Sénégalais sortent crient d'abord avant que ñu faj seen soxla. c'est dañoo ñemee jël ay décisions yoo xam ne duñ ci laaj yeneen partenaires yi seen ah. xalaat. yoo tax décision boo jël gars yi contesté ko wala du leen arrangé ñu dem nga vraiment yow nag nga toog. ki la fa teg pour nga waxtaan doxal kay waxtaanal. et ça c'est presque dans dans tous les secteurs. nañ ci bàyyi xel. 24 heures dafa ñëw ci sama tonton Habib si borom ndax xale yaa ngi yëngal nee naa ko duma la ko bàyyi de loolu nga. Habib Sy descend donc l'administration et secoue l'union des magistrats du Sénégal ndax lan mbirum situation bu Ousmane Sonko élection présidentielle yi daanaka dañu jàppee ne kon ak ak yelleef ñenn ñi dañu leen salfaañee wala nguur gi mi ngi doxalee ni mu ko neexee opposition mu koy xañ lu bari. Habib ci boppam daal na ci yëy yàb bi 572 migrants sénégalais seront rapatriés gaa ñaa ngay dem waaye dinañ leen dellu siwaat Maroc moom ku fa dem rek ba yeboo nga xam ne dañ lay dellu siwaat gars yi si loolu la ñuy dox Paris sur Maquis effet renoncement au troisième mandat donc le fait que mu ne bàyyi naa du ma bokk soxla mu troisième mandat loolu tax na daanaka gars yi am lecture bu rafet ci président Sall proposé nañ ko mu nekk envoyé spécial du 4P après le pouvoir c'est un CV pour l'ONU ah très bien ñi kanam raw liggéey te boo fàttali ko y a des médias français qui lui avaient demandé est-ce que mën na nekk candidat pour euh, secrétaire général Nations Unies junjoon nañ ko ko te ñu ko ko doon fa la jëm ni ah. ah, yow gëm nga ne noonu tôt fa la jëm. xëy na boo leen génnoon tuuti di ngeen xam le poids de hmm. dans la diplomatie internationale. l' évidence yéen a kaay nee na Abdoulaye Seydou am na poids de sa Dakar Plateau. <laughs> am na poids foofu de. te moo yem Kaffrine. moo maax moo maax kii moo maax euh, euh, euh, nu mu tudd Jagboor. fu mu nekk bëgguñu daara Dakar Plateau bëgguñu daara lu fa ta mbambam. désencombrement bi. si la ñu nekk de opération de ma Abdoulaye Seydou Sow libère le plateau. fu mu nekk noonu foofu moom. Hmm. bëgguñu dara lu nga xam ne nii moo fay xatal yoon bi dem beex dikk bi donc ña nga ca liggéey ba gis naa nag ay jaaykat yu nga xam ne fu mu nekk nii ñu ngay ñaxtu nee na fu ñu dem ñu yëkkati leen te ñu leen amul benn këyit bu ñu leen di jox ngir ñu mën a mën leen aviser quoi préavis. bu romb combat ngir ñu xam ne dañoo war a jóg bu ma romb ban. combat bi combat ana combat bi. demaatal demaatal mi ngi nee ok suñu mbër maa ngi moom matinal la bokk. tafatin. waaw ka un deux trois mu <laughs> sama mbokk la nag ndeysaan ku baax la nit ku baax ku dal waaw voilà déjà suñu kër dama démb dama fa dem tëngeej ma naan leen man man man moom combat maa ngi Tafa sama jarbaat naa ñu dañoo ngi ci ëmm mais leen ba jour ba hmm. baykat yi tamit fii bu tës hmm. nee moom ci ëmm man ma nekk maa ngi ci tafa. Mhm. may leen ba jour bi. fidèlal rek. maa ngi fidèle rek. fidèlal rek man ñoom ñaar ñëpp laa bëgg donc euh, je ne. je ne prends pas parti. je ne prendrai pas parti. doo parti si jëkkër fa. en keñ maa ngi sa tafatiin. <laughs> parce que ne voilà. non aswa aswa yow yow yow. voilà <laughs> nee na sëy des migrants. débarqués de justesse yow convaincre ko yomb. la sëy dafa foor yow. jàmm la laaj. waaw waaw. Barça wala Barça. des migrants donc de justesse à Bali. Inch'Allah ñu bokk. la pirogue qui avait donc la même plage le novembre est revenue sur la terre ferme après avoir frôlé donc un chavirement en mer ba tey c'est que nag Bargny le fait gaa gars yi di ko tuddee euh, aéroport international bu Bargny moo tax ñëpp dañoo jàpp ne ku dem ku tëmbee Bargny rek da nga yegg mais affaire bi léegi nekkatul Bargny Tëngéej wala Jokkul wala Kayaar wala Wakam déedéet géej gi moo neexoon. gis nga ay Kafountine yooyu yëpp kenn déggatu leen. mi ngo ay Joal ak Mbuur kenn déggatu leen léegi yëf yi dafa toxu Ndakaaru. diggante Bargny Rufisque. wallaay euh, euh, fii banlieue bi gàddaay ak ñoom seen. ba ci Soumbédioune gi. waaye fi la ñuy tëbbee léegi de l'observateur daata ñuy dem ci Oñaar. Mhm. nee na dette de l'état man c'est que ñi nga xam ne ñooy xëccoo ñooy xëccoo nguur gi bëgg a nekk président xanaa xam ñu ne Sénégal ay bori kese la. Hmm. te ku jël réew mi mën a di nga gàddu ay borom. Hmm. gis nga dette de l'état les entreprises au bord de l'asphyxie BTP rek sama mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci ma loger <laughs> waa tabax gi état yore na leen trois cent milliards man ñoo fexe ba des milliers d' emplois sont menacés les établissements privés ñi di yëngu ci wàllum njàng mi établissement privé yi ñoom ci boppam xoolal ñu ngay sàkku seize à dix huit milliards ci suñuy koppar barki dem boo concessionnaire di laaj ñaata quinze milliards dem si yàlla ama Sénégal ak ñooñu ñoom dañoo grève de la faim grève de la faim bu mujj gi ñoom sa xiif la benn safatu dara <laughs> wallaay ñu ngi topp di laaj seen xaalis léegi nit ñi di xëccoo dañu bëgg a jiite Sénégal Sénégal nga xam ne boori kase la doy na baax na confidence envers des migrants rapatriés tant euh, kii nee na moom j'en suis à ma cinquième tentative et je ne compte pas baisser les kon kii bu gisaatee gaal da mbëkk mi day mbëkk yàlla baax na Odia wax romb nga ko léegi xaar mii noonu Odia bi Odia de xale yi utum xëy sa rëdik président Macky Sall moom CVM jàll na am na xëy ci saa si nous avons pourtant les qualificatifs requis gis na ñu ngi ne toog ak seen i mais dañu gis fii ci réew mi am na ñoo xam ne pour ñu am mu xëy moom sa papa dafay nekk kilifa. xam bërëb ba am nu mu def nga ñëw ñu nangu sa dossier ci saa si looloo sax na corps de contrôle bi daal di ñëw di ko xamal ne l'homme qu'il faut. à la place qu'il bu ko defee nag réew mi mën a dox. lu gën a fës ci xibaar yi. da ca gën a fës asma moo di daañ dikkaat ci opération bu mag bi nga xam ne. daanaka service régional bu commerce daf ko am ci quartier Médina euh, bu Médina ñaari tali Grand Dakar ak Gueule Tapée euh, ci diiru ñaari fan nag lu toll ci fukki junni ci ay euh, kilo mburu daanaka noonu lañ koy woowee ay baguette de pain daal dinañu koy saisir ay chariot ay vélo yu nga xam ne mooy yóbbu mburu yi loolee daan ci di quartier bi la jot ay xibaar daañu waxtaan it xeexum cigarette électronique bi lañu ko tuddee ci boori lekkool yi lañu ko jaayee waa LISCA kuréel la guy xeex tuxum cigarette si ànd seex waajuru ndongo yi étudiants yi nee nañu mukk du ca dal dinañ ko xeex ba am ca ndam tàggat yaram CAN Côte d'Ivoire 2023 Aliou Cissé sélectionneur ba sunu gayndee mu ngay ñaawlu programmation match bu CAF 14h dana tar lool nag euh, fas ne ko jeexalee li yéene kaay xëy dëxëñ Ahmad Toulaye ci bundooy faram fàccee gis si Simon Faye lañ ci yàndal des naka door Simon ak fukki junni ci ay baguettes yu nga xam ne baguette de pain yi ñu saisir naka noonu it direction bu service régional bu commerce bu Dakar moo ko ak euh, maanaam saisir diggante alxames àjjuma loolee nag opération bu mag la bu nga xam ne nii lañ sa jublu moo di jéem assainir euh, yoon wa nga xam ne mburu mi fa lay jóge ci boulanger ba doog a yegg si ka ko jënd jaar ci boutique yeex euh, chariot yeex vélo yi si diiru ñaari fan yooyu yee jàppale nekkoon ay moto ay chariot ay vélo daanaka yu yóbbu mburu yooyu yëpp leen saisir volontaire yu yu service régional bu commerce ñoo def liggéey bi dem nañu sa Grand Dakar Médina tali jàpp Gueule Tapée ñu ànd seet Tidiane Diallo Madani waa service régional bu commerce bu ndakaaru lancé nañu benn opération ngir assainir service de distribution mburu mi ci koñ yi cadre opération yu ñuy def lu ëpp junni euh, baguette de pain lu tollook euh, ëpp ñaar fukki jakarta ñaar fukki puus-puus lu tolloog juróom-benn fukki euh, ay velo liggéey bi nag ñu ngi ko ànd ak volontaires yi te quartier yu bëri dem nañu fa. ñu Medina sa Medina dafa xaw a yaatu Medina un deux trois def nañ ko def nañu euh, aussi itam Gueule Tapée euh, def Fass Gibraltar ñaari tali. ku jiite service régional bu commerce bu Ndakaaru di xamal boulanger yi mbir mi. day am suivi. mooy ñu fexe ba nga xam ni lii ñu door benn mu wéy ñaar it fépp foo xam ne raxas nañ ko ba noppi ñu fexe ba dara lu fa dellusiwaat ci mburu loolu mooy le suivi. waa service régional bu commerce bu ndakaaru di woo boulanger yi nañu installé seen kiosque yi ci quartier yu ñu jot a contrôlé ngir permettre consommateurs yi am mburu directeur service régional bu commerce bu Dakar mu ngay rafetlu daanaka liggéey bi nga xam ne def nañu ko euh, liggéey bi nga xam ne it daanaka euh, dire président bu fédération des boulangers du euh, Sénégal ña nga ca Amadou Gueye mu ngi sàkk ci collectivité territoriale yi ñu yombal boulanger yi ci boppam ñu mën a teg ay cantine ci yenn gox yeex gox goxaat yi su ko defee liggéey bi dana gën a jàppandi ca ñoom Amadou Gueye ay kàddoom ñu teewlu ko. ak te waxtu ni mairie ñoom ñoo ñu jox ndigal pour ñu mën a installer ay kees bu ñu ko nangaloo danañ mën a installer fépp fi ñu kees parce que fii am na ñu bëri ñu am.